sëriñ fal li loo aljuma tey kasu rajab la takku juddu bi mbar may bakko sëriñ fal li loo aljuma tey

basura jam la sakku juddi laay dar ko mbar may bakkoo nee nañ corook daan dañu dundal nampal te jënd biisu sëriñ Baliila dani buñ ko nampal fee jant bi soo buñ ko jox toqantal Yusuf Garag wax na ni Rasulullah ñëw na ngir juddoom gi doon na laay Abdoulaye moom lay saa waxoon waxoon jureel garaw na buusa Sëriñ Falila bu bam defoon bam mën a waxte mi mur moo mën a def keroog sëriñ Falilu mën a woor amul lor di gax taway naay maa lawoon nastaaku salaalayka akramul xalaaq ba liir bi dana toog bayaate sëriñ bu mag ba moo ko tuddee faadilu mu yor ya doon faridun kaamilun cheikh bamba ab junjam du mooy ni faadilu noppuy muy mof doolu mbaa muy jaayilu mënu am bu kenn werenteeg baaxam wallaay man xam naa ni sëriñ Falilu moo di yaaram wàllu ndayam boo ca waa musóobe te ay sërif la ñoo Seex Bamba si layaat na ko daari xal li waji laaye ak darajay baayam ba doon laaye ak darajay baayam ba doon laaye wala tagang marsiyo ndax mu may ma dara jaam gën li weesu xayma ci yàlla ci sëriñ bi maa ko waaroo warkat bu mag ba war na tuubaag daal sëriñ Balla sëriñ Fallu boobu sëriñ Falilu dem na ku nekk lum dee ti jublu ti jublu nay lo xam nay ko mbaalu ko jablu jablu asama Seex Bamba Falilu fekk na tey baayam baayam ba ak magam ja wéetal na gox yi yal na seeru jëf jëf ma jaay mas yaa ليبقى المكي للشيوخ أحمد المكي نبي سلمان يصنع إبراهيم كلي خادم خادم كلي مخدوم يوم بالجميع جويما مسلم فل فل ولا إلا يوام mbas la mbas la mbas la toog palaasam daal di xam ni mbër la mbër la ngonu talaata nga fi mbër moo gontee fekki sëriñ bu mag ba ndaw lu bett faw fa nekk fenn rakaati gàmmu jël na fi mbar mu am xoram ta sàmm adduna war nganu te war sa bopp te xam naa ni léegi sa baraagi rab alarba jeeja xam sa si jantam ba mel ni ni géejewam sa si bisamba bisub keroog bisub keroog mbooleem mbooleem lu doon gaal jéeri wax na jëm këram nga ndaw wiiree xel ya gëlëm xol yëpp maase tàng ranko yeyul di tuuru cër yi ràgg wata yi ak watiir yi def ay joxe jëf di këram yàlla bi mbir yi sooxe muriita kub xaadira kub tiijaanoo ñëpp a ko jooyoo ak saa sultaan sëñ fal li kuraas ya ngir ak jëm xat gi seet xel mbir ya njëriñ yu mag jawaan faalu Tuuba jooy nañu ngir xam ni moo di sang baar bisu keroog keroog ka wuutu ngeen jal barakam ñu maandu tabe al taaram ba moo ñëw këram taaw ba jox ko mbir ya waa Mbàkke ñëpp deew di seede mbir ya waa say sëriñ Tuubaa ne ñëpp waaru bisub keroog rek xoñ yooyul di tuuru keroog sëriñ Cheikh Mbàkke say sudi deewe na mbir ya jooja waay jooja waay du cuunañ keroog bisub garaag lay xëy waate waa kër ga bëgg lool ndekete nar na joote wir naa pelak ku ne na dem ci soxlaam solu sër yu laab nuy joxal ay kalaam bisub keroog dellu na wat luy naan leewem bi sëg moo kéemaanu folil wanqaas ak garab ya def mbaar ci digg mag jumaa jo day nu mag waar bu dara dox bi saa diggéeg Seex Bamba la wax keroog ndëkk ci lëm na biir ba dal mi murid yi abal ma tuuti laaj la golon tuuroo ko mu jawaate ba jëmu see ñu fekk mbër ma sonu ni cell mel ni dafa yëg ab coono mu'min bisub keroog bisub keroog li xew ci xeeti xarbaax kenn mënu ko lim ko doy du ak baax ak baax sëriñ fa tuubaa fa am li mu sabak baayam ba fekkoon na kees ga ñu tolloon yaaram def ko ca biir yóbbu ko Tuubaa bis ba ma nga mu dencoon ndindi moo ko gaaral ceernoon be kero bañ koy waajal moom la ñu def ko ca dem fa baaye abro fa penkum tuuti moo bari ndam sëriñ fal liloo ña teew bis keroog di waajal mbër kenn man la xam seen lim baraw na xayma rakam sëriñ Abdullah yaaram ba sëriñ sooy bu Mbakke may santam ba ak surtout Bamba doomi am ji Moustapha doomi sëriñ Bachiru Mbakke waa kër sëriñ Afe ak Daaru Salaam waa Daaru mu ci ñëpp teew doona malam ànd ak yeneeni góor yoo am ay maanaa waaye di leen li may waral ak coono Sëriñ Suhaybu Mbàkke doomi Bàmba moo ko julee saadix la gëm na Bàmba Cheikh Modou Xabaan xaritam di waayam xolam ba jeena keroog ngir di gëm ak ni jaayam bisub keroog sargal naa ko maram ban xaw wara di màggal mu xuus ci njëndeef wey gi jaal yu mag ya rabbuna salaam ridwaanu ubbil yuli ya bay xel musik ba jib gët ga dal di salli garoog la am ba pejum tuuba ginnaaw rabam ba ngay wer wer yi maa ko wóolu sëriñ Faliloo kiisu keroog wu ni mel ci saayir mësula am fa mbàkki ñëpp a ngay ser bambal te du sax ku yëngu far wakiilu di jaamu yàlla doy nu koo góorgóorlu dara du sax ku yëngu far wakiilu di jaamu yàlla doy nu koo góorgóorlu jaama wasusil la feeñ fa Tuuba am na ñu na daaru salaam la booba la mbër ma génne daaru fekki fekki sëriñ Tuuba jamomat mbër ma génne daaru sañ si si Tuuba Mbàkke ñëpp waaru aljuma tey kasu rajab la takku jundi li laay dar ko mbër may bàkko sëriñ Fal li loo sërifun sërifun bun sërifun sërifun sërifun sërifun bun sërifun sërifun sërifun tuuma jublu la saatir du tas yaakaar du daw ko koy laaj mu laaj mu may la liggéey jël aliyu xaniyu laaw ana muhammadun al muxtaar maa la ko yow Cheikh Fadilou yaa moom yëfi may ma ci laa lawlaa ka Sëriñ Fallu yi wal wali kon ci bool waleete ngeen way faadizul fatum mbàkki nguusu bil kii mooy njiite mooy wasila lor dem na xewal yi baawaan dootul jeex abadan ku sopp sëriñ falilu ku sopp sëriñ falilu ku sopp sëriñ falilu xewal war la lor dëddu la dëyi la fàllu fi abadi ri la mën a daa tànnee fi xam nañu la loo wax borom ga gaaw ko def yaay ku juboo waa diwaan ya seen loo ya xam nañu la bëykil bilaay yaa yor fondement ba bu wér sërif nga yaa jiite mboolem kuñ naa wàlliyu la gaal gaal gi ñuy teer ku ne batar de yaa xale yëg ku dugg ci gaalu sëriñ bi Cheikh Fallilou àggale la gaal gaal gi ñuy teer ku ne batar de yaa xale yëg ku dugg ci gaalu sëriñ bi Serigne Fallil waa Galela yàlla ñu bokk fekki waat déwén